soo bëggee xam jëf yi aj na mu toftaloo ba nga xam ne loo def xam la ca topp xam la ca toppaat ba ba ngay noppi nekkoon déglu ma bu baax te teewlu ci sam xel ndax nga mën a jàpp li may wax moom nag noonu la koy defee te tàmbalee ca armal lu ci nekk rek mu wax la na ngay defe ak la ca topp ak la ca topp ba mu àgg ndegam armal moo njëkk ci jëfi aj gi day njëkk wax nag kon waajtaayi armal te loolu mooy nga njëkk a jéem a setal sa yaram bala ngaa sangu te loolu mooy wat kawaru naq xus kawari poqtaan gémp ay mustaas léegi ay weex boo defee yi ba noppi nag nga wëlbatiku sangu ci ngaayul armal waaye moom nit ñi sangoo janaaba rek noonu lay mel boo sangoo ba noppi itam dëggam góor nga xam ne kon boo xasee armal dañ lay aaye sol lu ñu ñaw kon wutal ak làmbaay ak teraxlaay ak yaari daldi carax di tax ñu wax daal carax mooy dañuy bañ ko sol ay bot bu fekkee ne am na yeneen daal nga xam ne cangaay li sunna la sol yet yi ba tey muy làmbaay teraxlaay daldi carax ba tey sunna la su ko defee su fekkee mën ngaa wut addiyu yoraale baax na bu dee suñ jamono ji nag moom li ci ëpp am na ñuy saytu googu wàll boo jox ko ñoom rek ñu mën laa toppatool addiyu na nga ko bëggee banaa boo sangoo ba noppi nag ba sol si yëri armal kon daal di armal moo cay topp waaye nag armal dañoo bëgg mu topp ak julli nga xam ne waxtu woo su fekkee dagan naa naa fi la dañoo bëgg nga julli ñaari rakka rakka bu njëkk ba gannaaw faatiha qul yaa ayyuhal kaafiruun rakkab ñaareel gannaaw faatiha qul huwallaahu ahad boo sëlmalee nag daal di armal fi saasa maanaam boo jullee ñaar rakk yi ba sëlmal da ngay daal di armal armal waxam naa ne mooy nga dogu ci sa xol rek ci def aj ga mbaa umra ga saa yoo xasee yéene dogu ci sa xol rek armal dal nay am la ciy ànd nag ci wax ni ki wax la bayka mbaa jëf ni ki dox dal di wuti kaaba ga fas ko yéene wër loolu lépp moom daa jokk rek ci armal gi waaye jënd armal gi moom mooy rek yéene ji te doo ja kon nag boo jullee ñaar raaka yi ba sëlmal mën ngaa wax ci sam xel ne sunu borom day yéene na maa aj sa néeg bii yàlla na ma ko yombalal te nangul ma ko yéene jooju nag ñetti xeet lay bokkut mën ngaa yéene aju kese kese te moo tudd ifraad mën ngaa yéene yaar yépp yéene xumra yéene aj benn yoon loolu moo tudd xiraan ba tey mën ngaa yéene xumra kese boo ko defee ba àggal ba aj gi jege si nga daal di armal aj teg ca loolu moo tudd ak tamatoo kon am na ñetti xeeti yéene mu ñetti xeeti armal yoo xam ne boo jàpp rek mu baax bu dee ci yoonu maaj nag moom bi nga njëkk a wax muy ifraad mooy yéene aju kese def ko ba àggal boobu lañ gën a taamu soo xasee armal nag ba tàmbalee wax labbayka labbayka ji doo ko bàyyi da nga koy takkoo lu muy nag boo sonnee noppalu bu amee la dog mel ne lekk wala naan wala mu yóogu ñu nga taseel mbaa nelaw yooyu su loolee jeexee nga dellu ko yeesalaat ba ba ngay dem arafa daan wax boo demee arafa nag na ngay bàyyi labbayka ji aj yépp doo ko waxati mukk mukk waaye daal lépp lu yees loolu te wax labbayka ji rek bu loolu jeexee na nga koy yeesalaat ni ki sax noonu mu waxee boo jullee ba noppi xam nga julli kat lay tey wax labbayka ak yeneen yu bare bare waaye lu la gàllankoor boo waxoo ko rek boo noppee delluwaat ca kon labbayka dañoo taamu nga digg doomu ci wax gi doo ko saxoo saa yu nekk ba mu sàppi la digg doomu itam ci sa kàddu doo ko yëkkati ci kaw lool bay bay xëx doo ko suufee lool ndegam góor nga waaye bu dee jigéen nag moom labbayka am na koy wax ci suuf rek jigéen moom day araam mu yëkkati kàddoom moo xam ci nodd la moo xam ci sikkar la moo xam ci julli la moo xam ci wax labbayka la dañoo sopp nag booy bëgg a dugg màkk nga sangu ca ngaay loo xam ne doo bomb da ngay sotti rek ndox moom nag yoonu muy awe moo tax mu ne la boo tolloo ci jiitu woon rek waaye bu awee ci yoon itam bala ngaa dugg màkk rek sopp nañ nga def ca ngaay loolu te bañ a bomb sopp nañ boo dugg màkk nga dugge ko mbedd ma ñu wax kada ut saniya soo ko duggee meneen du wàññi dara waaye sopp nañ nga dugge ko ci mbedd moomu soo agsee ci néegi màkk yi da ngay daal di bàyyi labbayka ji fas yéenee jawali kaaba ga wër ko wër bi ñuy wax wërub nuyoo su ko defee sopp nañ nga duggee ca bunt bi ñuy wax baabu salaam soo ne yurub maanaam boo door a dugg dañoo taamu nga daal di waaxu fóon toj ba ca kaaba ga ndegam mën nga caa àgg nga fóon ko te kabar su fekkee dafa xat nag ba mënoo caa àgg nga dem ba tolloog moom rek daal di mépp sëg fóon maanaam junj te muy mépp sëg fóon te boole ci wax allahu akbar ndegam mën ngaa fóon doj woowee mbaa mënoo koo fóon ba taxaw nga tolloog moom lépp sëg fóon daal di kabar foofa ngay tàmbalee sëg wër nga xam ne ngay tàmbalee wër bu agsee fa nga tàmbalee woon jàpp ne am nga benn yoon nga xam ne yoon bu njëkk boobu ci lañu sunnaale nga fóon alxajar al aswad yoon yi ci des moom doonte mën ngaa fóon doju itam fóon nga ak soppal waaye àggul ci sunna bul fàtte itam boo wër néeg bi dalay féete càmmooñ waaye bu mu la féete ndeyjoor da nga koy càmmooñu mu féete la càmmooñ te bu mu la féete ndeyjoor li mu la waxal ne la yoon bu ne boo wëree ba tolloog doj yi te mën a jàdd fóon ko na nga jàdd fóon ko soo ko mënut nga dem ba tolloog moom daldi ñëpp sëg fóon te wax allahu akbar loolu wax ne am na lu ñu wooye ar rukn al yamaan yi moom yoon bu ne saa yoo tolloog moom na nga ko raay ak sa loxo jël sa loxo teg sa gimiñ te bañ a muucu sa loxo nga xam ne moom ar rukn al yamaan yi soo ko mënoon a fóon ak gimiñ itam du tax nga fóon ko ak sa gimiñ maanaam saa yoo mënta àgg ca doj wa bu fóon ko ak sa gimiñ waaye mën nga caa teg sa loxo kon na ngay jël sa loxo raaya ko doj wa ba noppi nag jël sa loxo boobu teg ci sa gimiñ te bañ a muucu sa loxo ko defee nga kàbbar nag daal di jàll ni ñu ko waxe woon rek ngay wëree ba mat juróom-ñaari yoon daa wax ne wër bi juróom-ñaari yoon la waaye bu fekkee la ngay góor bu dee jigéen génn na te itam muy wër bi nga xam ne muy wërub nuyoo bi muy wërub ko ak si màkka kon bu dee góor moom sunna la yetti yoon yu njëkk ya mu lagg ko lagg nag xaw naa jege yukk ndax wees na dox ndànk te agul ci daw bu baax waaye loolu nag kaw mu yaatu rek waaye bu fekkee dafa xat bu mënoo ko itam kon doo mën a lagg waaye soo ko mënee daal moom ndax yaatu na te ngay góor sunnaal nañu yetti yoon yu njëkk ya nga lagg ko yent yoon yu mujjee nag nga door koo doxe na nga mën a doxe waxam nañ ne bokk na ci waru gar yi bu wëree ba noppi te wër ba nekk wër bu war nga dem fa gannaaw maqaam ibrahim julli fa ñaari rakka bu foofu xate itam foo jullee ñaari rakka yi rek mu baax kon bu wëree ba àggal demal julli ñaari rakka yooyu almultasam mooy la nekk diggante bunt ba ak alxajar al aswad foofee la wax ni nag gannaaw bu wër bi àggee na nga fa taxaw ñaan fa ñaanal sa bopp ñaanaaleel képp koo bëgg a ñaanaaleel ndegam nag wër bi àgg na te dañoo waxoon ne dox safa ak marwa day sës ci wër kaaba gi kon boo jullee ñaar rakka yi ba ñaan foofee ci multasam dañoo bëgg nga delluwaat nag fóon doj wi bala ngaa génn dem ca safa nga xam ne fóon bii fóon doj wi bala ngaa génn dem ca safa dañ koy boole ci sunna yi dox safa ak marwa safa nag aw doj la moom ngay njëkkee door a dem ci marwa ba tax mu ne nee na bu àggee ci safa aw doj la te naqari wut a yéeg kon boo dee góor sunna la nga yéeg ba ca kaw jàkkaarloog kaaba gi bu dee jigéen tam te amul buux buux loo ba tey kon na yéeg waaye nag su xatee mbaa mu am ca xasoo góor ñi bu dee jigéen kon bu mu yéeg boo taxawee nag ca kaw doj wa ca safa da ngay jàkkaarloog kaaba gi di kabar di wax laa ilaha illallah ñaan door a wàcc nag wuti marwa soo ñëwee marwa itam noonu nga yéeg ba ci kaw jàkkaarloo kaaba gi kabar wax laa ilaha illallah ñaan door a wàccaat ñëwaat ci safa nga xam ne safa ngay njëkkee boo ñëwee ci marwa ne wenn yoon a ngoog ba bàyyi ko ci marwa ñëwaat ci safa muy ñaar nga di ko def nag ba mat juróom-ñaari yoon ci diggante bi nag am na fu ñu wooye batul masjid baa ñu koy wax léegi diggante ñaari poto yu nëtëx ya boo fa tolloo tey góor sunna la nga gaaw ba weesu diggante boobu door a doxaat nag na nga mën a doxe dox safa ak marwa dañ koy def juróom-ñaari yoon waaye nee naa léegi dem bi aw yoon la dellu si bi aw yoon la loolu nee na boo ko seetloo kenn ku ne ci ñoom ñaar da nga fa taxaw yent yoon fekkoon te yor nga sa bindukaay rëdd fee safa rëdd fee marwa seet boo doon bàggante bàyyi koo fee dem fee bàyyi koo fee dem fee ba mu juróom-ñaar yoon da nga gis ne fenn ku ne taxaw nga fa yent yoon nee na nag ba ngay wër ak ba ngay dox safa ak marwa ak boo yéegee ci kaw safa ak boo yéegee ci kaw marwa xamal ne kat yaa ngi nekk ci béréb bi nangu ñaan kon na nga bari la tudd say bakkaar di ko jéggalu te ñaanal sa bopp lépp loo bëgg yàlla may la ko di ko ñaanale bokk jullit yépp soo di wër kaaba dañ cee sart mboolem sarte yi ñuy sart ci julli ba mu des jublu xibla moom rek dañ ciy génne nga xam ne kon war nga amee laabu xadas ak laabu xabas war ngaa sàng itam awra laabu xadas mooy bu la jàpp waree mbaa sangu farata nga def ko bu fekkee tiim mooy sa farata itam nga tiim laabu xabas nag mooy nga bañ a yorewaale sobe soo xam ne mën ngaa tàggoog moom te tey ko xam ne sa yaram ak lépp lu àndal bi ay yére yëpp rek dara du ca laal sobe te nga mën a tàggoog moom nga sàng itam awra lu ñu waxoon ne ci julli mooy awra ba tey fii war nga ko fee sàng boo di wër kaaba booy dox nag safa ak marwa dañuy sopp rek yaari laab yooyu waaye nag sàng gi awra moom mat naa teyelu ndax bu fekkoon yow rek yaay dox diggante safa ak marwa doo te fekk kenn ba mu gis sa awra kon ñu ne sàng ga awra lu ñu sopp dong la waaye nag ndegam di yow rek yaa fay nekk kon sàng ga awra lu war lay doon ndax sàng sa awra ba kenn mañ koo gis daa bokk ci wari gar yi bokk ci farata yi mënta ñàkk ndegam agsi nga màkka wër nga kaaba dox nga safa ak marwa kon nag mën ngaa delluwaat fa sab dal rek di baamu labayka ji boo sonnee noppalu waxtu julli jotee it nga fexe julli ci kaaba ga ndax tuyaaba ji bari ja bañ ne tey la bisub juróom-ñetteel bi ci weeru tabaski koy wax yow mu tarwiya bis boobu lañ bëgg nga génne nag léegi màkka wuti minan bis boobu lañ bëgg nga génne nag léegi màkka wuti minan bu ñu nee tey la juróom ñaareelu fan ci weeru tabaski bis boobu lañ koy tuddee yow mu ziina mu ne bis boobu nag am na xutba bu ilimaan di def bu jullee tisbaar ba àggal waaye benn xutba rek lay doon du toog ci diggante ba benn xutba rek lay doon xutba bi da koy tàmbalee allahu akbar ba tey ci biir tam muy waxaale allahu akbar ni ñu koy defee ci xutba bi it xutba boobu ilimaan da cay jàngale ku armalu toon may armale ak ni ñu war a génne dem mi nan ak la ñuy def rek lépp lépp ba àgg ci tisbaaru bisu arafa loolu lay jàngale ci xutba boobu moo tax mu nekkoon na nga dem teewe xutba boobee déglu ko bu baax doon naa ko wax léegi buñ ne tey la bisub juróom-ñetteel ci weeru tabaski dañ koy tudde yow mu tarwiya la ñu sopp nga génn nag màkka dem minan la gën nag mooy nga fexe ba jullee ji fa tisbaar maanaam boo fexee ba jullee ji tisbaar ca minan fa ngay nekk ba fanaan fa xam ne kon fa ngay jullee takkusaan ak timis ak gee ak suba boo jullee suba nag nga xëyee foofa nag fekk bis boobu mooy bisub juróom-ñeenteel nga daal di wuti arafa bisu arafa bi bu tisbaar jegee sopp nañu nga sangu koy tuddee ci ngaayul bisu arafa waaye moom it doo bomb yaram wa maanaam boo ñëwee fa jullikaay arafa ba limaan day njëkk xutba ñaari xutba bu xutba ba noppi nag daal di jiite mbooloo ma ñu julli tisbaar ak takkusaan te boole leen wàññi leen boole gi mooy buñ sëlmalee tisbaar rek fi saasa dañuy daal di noddal takkusaan wàññi gi nag moom mooy kenn ku ci nekk ñaari rakk rek lañ koy julli bu ñu sëlmalee tisbaar takkusaan taxawaay boobu ñu taxaw ci arafa njëkk jant bi soo moom waru gar la ku ko bàyyi itam fay addu rek dañ koy tuddee taxaw arafa waaye teew ga arafa rek lañ jublu nga xam ne boo amee loo war sax nga nekk ca kaw moo gën fekkee ne nag amoo loo war kon taxaw moo gën toog boo sonnee nag mën ngaa toog waaye bu fekkee yow daal góor nga te sonnoo taamuwuñ nga àgg suuf boo sonnee nag saye boo àgg suuf su ko defee nag nga saxoo tudd yàlla di wax laa ilaha illallah di julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te bari la ñaan sa boroom kon na nga baril laa ilaha illallah na nga baril julli ci yonante bi na nga baril ñaan nga sax ca noonu nag ba jant bi so gannaaw bi jant bi sooyee ci bisu arafa boobu da ngay taxawaat tuuti bala ngaa wuti musdalifa ndax gannaaw bu jant bi sooyee loo fa taxaw lum néew néew balaa fajara fenk rek loolu lañ jàpp ne mooy taxawaayu farata ba nga xam ne fa jant ba sooyee digganteem ak fajar di fenk bu fekkee ni taxawoo fa arafa rek ñu jàpp ne aj raw na la ba déwén nga ñëw fay si ko waaye nag boo taxawee si ndir rek daal di bàyyi koo foofu nag ñëw musdalifa musdalifa la ñuy jullee timis ak gee maanaam da ngay ñëw wut si musdalifa te am na diggante yaar doj yoo xam ne soo mënee jaar seen diggante moo gën bu xatee bu mënoo faa jaar nag foo jaar rek baax na su agsee musdalifa fa ngay jullee timis ak gee te boole leen boole gi mooy da ngay jëkk a jul timis daal cee teg gee mu sës ca fa saasa te gee ga moom ñu wàññi ko julli ko ñaar rek timis nag moom kenn du ko wàññi wàcc ga musdalifa waxal nañ ne warugar la borom bi rek jàll wàccu sax daal di war a fay addiyu la gën nag mooy nga fanaan fa moo tax mu ne na nga sib say bagage te fanaan te bari la topp yàlla ci guddi googee dundal guddi ga ci loo mën rek ci lu yàlla gërëm boo fanaanee musdalifa ba julli suba nag waxtu woo nga xam ne setagul bu baax lëndëm mi ngi jaxasoog leer lañ bëgg nga bàyyi ko foofa dem taxaw ca almasharul haram ba nga xam ne léegi set na wecc ba jant bi bëgg a fenk nga door wéy nag wuti minan ndegam bàyyi ko nga nag ci almasharul haram xamal ne boo wut see minan am na xuru ñu wooyee battunu muhassir moom la wooyee fii battunu waa di naar boo fa tolloo bëgg nañ nga gaaw ba weesu ko su ko defee nga wéy nag jawali xaqaba soo agsee minan li nga njëkk a def mooy sànni jamaray xaqaba soo agsee minan nga daldi waaxu sànni jamaray xaqaba dañoo bëggoon nag juróom yaari xeer yi nga xam ne moom ngay sànni nga fare woon ko ca mustalifa bu fekkee fare woo ko fa woon nag kon baax na fee boo far rek fa nga toll waaye nga wuti woon ko mustalifa indaale ba agsi daal koy sànni foofu ci xaqaba loolu lañ gën a taamu xeer yi ngay sànni nag day digg doomu rek du ëpp lool lool du tuuti lool lool te doon ëpp sab rek sànn wa sànni rek waxaale allah akubar dagam xëy si nga nag léegi mi nan sànni nga jam rey xàqaba ba noppi see boo daal di rendi mbaa nga loj sam addiyu maanaam sam addiyu daal bu dee lu ñu rendi nga rendi ko bu dee lu ñu loj nga loj ko waaye jamono yi daa mel ni moom da ngay seet ñi nga xam ne ñooy toppatoo googu wàll rek nga jubóog ñoom ñu toppatoo la addiyu ma defal la ca la ca wax li wax nag moom mooy ndegam yor nga addiyu te taxawaloon nga ko arafa kon ba asee foofu ci minan ba sànni jamre aqaba ba noppi na nga ko daal di loj bu dee lu ñu loj baa nga rendi ko bu dee lu ñuy rendi boo xasee loj ba noppi da ngay daal di watu jemp it baax na waaye watu moo gën bu dee góor bu dee jigéen nag moom day jemp rek waaye du watu nel jigéen watu nel moom araam na te jigéen bu dee jemp sax tuuti rek lay jemp tuuti rek lay jemp góor na moom bu dee jemp day jemp bu baax a baax ba mu gàtt gàtt daa wax ne danga xëy si nga mi naan sànni nga jamre xàq ba loj nga sa addiyu watu nga mbaa nga jemp kon nag léegi daal di delluwaat màkka def tawaaful ifaada rek moo ci sës tawaaful ifaada moom na nga waroon bu njëkk ba rek ñoo bokk melaw yi boo waree ba àggalit nga daal dem julli ñaar rakkee wër ga dañ la waxoon rek ci gannaaw maqaam ibrahim bu xatee foo ko jullee baax na xanaa nga jàpp ne rek li ñu wax yeweeku yeweeku mooy yeñu la aaye woon ci aj ga aayeetuñu la ko dafa doon ñaar yeweeku bu mag ak yeweeku bu ndaw suñu ne yeweeku bu ndaw nag mooy yañu la aaye woon yëpp yëpp sañ nga ko ba mu des rek joteeg góor a jigéen ak rëbbu ba tey laal lat ko lañ ba tey ñu sib ko yeweeku bu mag nag mooy yañ la aaye woon yëpp aayetuñ la ca dara dara loolu na mi ngi amee ci boo defee tawaaful ifaada ba àggal te fekk doxoon nga safa marwa nga xam ne ko defoon ifraad mbaa xiraan moom su ko see def tawaaful ifaada rek te fekk doxoon na safa marwa ca ba muy def tawaaful qudum kon moom dal na yeweeku yeweeku gu mag ga waaye nag ku defoon tamattu moom dëgg la sax doxoon na safa marwa waaye dox safa marwa googa umra gam jiitaloon rek moo ko moomoon kon faaw tey jii bu defee tawaaful ifaada ba àggal day jàll dox safa ak marwa door a yeweeku yeweeku gu mag gi ma tuddoon léegi ku noppi nag ci tawaaful ifaada mbaa bu ci dee teg dox safa ak marwa itam teg na ko ca ba noppi kon day del siwaat nag minam fexee ba julli si tisbaar ndegam mën na ko su fekkee am na gàllankoor ba jullee su fët sibaar itam na fexe rek moom ba fanaan si minan ndax yaari guddi yooyu mu yaari guddi yi nga xam ne mënees ko fa ñàkk fanaan ci tey ji ñu jànge bisu gaaw la bu fekkoon tey mooy bisu fukkeel bi jël si nga màkka ba def tawaaful ifaada na nga fexe ba fanaani minan xam ne guddi gi ñu jëm muy guddi fukk ak benn ak guddi ga ca topp muy guddi fukk ñaar mënees su ko faa ñàkk fa naan soo ko deful rek daal di war a fay addiw muy alamaan ma ñaari fan ñooñu meneen fekkoon ne tey la gaaw nee naa ci misaal mooy fukk kon suba di dibeer fukk ak benn ak altine gannaaw ëllëg di fukk ñaar ñaari fan ñi moom bu tisbaar jotee saye boo foro yetti juróom ñaar ci ay xeer ndax daa ndax daa am yetti jamra yoo xam ne dañu fay sànni fenn fu ca ne juróom yaari xeer kon sa yeboo foro ci ay xeer ñaar fukk ak benn mbaalu ko ëpp sax ndax bu ca benn rotee ba am ca boo xam na nga ko sànni baaxut nga mën a jëlaat beneen yetti sànniwukaay yooye nag day am bu njëkk boo war a njëkkee am bu ca topp muy bu ñaareel am bu ca mujj bi am ñetteel te mooy xaq ba faaw nga tegalee ko noonu njëkk sànni ba ñu war a njëkk sànni teg ca ba ca topp mujjee ba war a mujj soo ko tegalewul noonu du baax foofa àgg rek nga sànni fa juróom-yaari xeer te xeer wala sànni nga waxaale allahu akbar xam nga ñetti sànniwukaay la su ngay njëkk a sànni mi jamra bu njëkk ba ak ba ca topp gannaaw boo sànni ba noppi dañoo bëgg nga taxaw fa lu yàgg-yàgg di ñaan ba ca mujj nag te mooy xaqaba moom boo ko sànnee ba noppi duñu sopp nga taxaw fay ñaan xam nga waxoon naa léegi ne fekkoon tey gaawu mooy fukki ci yor tabaski suba bi fukk ak benn di dibéer ak altine moom mëni su ko ñàkk sànni jamare yi ma wax léegi léegi nag bésub talaata mooy ñetteel ba ci boo tàmbalee wàññee ci dibéer waaye mooy nekk ñeenteel ba ci boo tàmbalee wàññi ci gaaw bi nga xam ne mooy bésu fukkeel bi daa wax ne nag altine gannaaw ba nga sànnee ci bëccëg ba la neexee fanaanaat ba sànni bisu talaata ja ci bëccëg bu la neexee nag boo sànnee altine rek mu bisub ñaareel bi xam ne moom mooy bisu ñaareel bi ci sànni jamra yi la neexee daal di gaaw génn foofa ci meneen del siwaat màkk mbaa fu la soob rek tayee xaar fanaanu talaata ja ak sànni bëccëgu talaata ja kon seetlu nga ne ñaari fan ya nga xam ne ñoo sës ca bisu fukkeel ba sànni jamra yi ca bëccëg ba mënta ñàkk boo ko deful rek war a fay addiyu muy alamaan waaye nag bisub ñetteel ba moom dañ lay taamuloo bu la neexee xaar ko sànni bu la neexee itam nag ñi nga defee ñaari fan ñi nga bañ a xaar bopp ñetteel ba léegi nag bu fekkee mën laa xaar bopp ñetteel bi kon bisu ñaareel boobu balaa jant beesoo na nga daal di gaaw génn minan ndax nee nañu bu fekkee ne xas nga yéex ba jant ba soyee la fa faaw nga war a xaar ba sànnil bisu ñetteel ba sànni jamra yi moo mujj ci aj gi boo ko defee ba àggal nag mën ngaa dellu ci sob dal mbaa fu la soob waaj ba jekk nag bu dem rekk desee nga dem wër kaaba gi wërub tàggoo wërub tàggoo boobu dee ci yoonu Malik lu ñu sopp la